équipe bu Allo Dakar nee naa la du ñu des ginnaaw ci mbir mi xoolal ma kii Aliou ngi moo nekk bras droit wu DG ah jibi macha allah kon waa Allo Dakar ba tey du ñu tegg seen loxo de bëgg leen xamal li ngeen bëgg a xam ci biir Xelcom yi ci nekk ak ngëneel gi ci nekk ba tey dañu seen fii ni suñu suñu suñu directeur DG Allo Dakar. noo tey moom nan wax taalibe rek euh, Xelcom man mën naa wax ni maa fi ñëw en 2011 te bi ma fi ñëw 2011. mën naa wax ni jëwrin Cheikh Amar moom fi indi donc mu doon nit koo xamante ni sunu xarit la sunu frère la bi ma indee xel kom at bi si tegu la ma yóbbu si sëñ Cheikh saliw présenté ba pare ne dama bëgg nga si sëñ Cheikh si laa si sëñ Cheikh juróom benn juróom ñetti at chaque année dinaa ñëw Xelkom ànd ak sama njaboot ñëw euh, li tax loolu ma koy def man gis naa njariñ bi euh, te bëgg naa képp koo xam ne mësta ñëw Xelkom euh, mu def tout pour ñëw Xelkom. képp koo xamante ni mësta ñëw Xelkom mu def tout ba daal di ñëw Xelkom waaye nee na en 2011 la ñëw te Cheikh Amar moo ko indi dama ko bëgg a laajte moom suñu DG Allo Dakar naa ma Fati ndax Serigne Cheikh Amar moom moo la dugal ci di ci Murit. non dugaluma si murit sax man bi ma ba ma koy xam fekk na ma nekk murit waaye am na foo xam ne àdduna koo gis nga dem fenn nit moo la fa yóbbu moom moo ma indi xel kom moo ma boole sëñ Cheikh euh, ba tax na tey sëñ Cheikh Saliou mi nga xamante ni moo nekk jëwrinu xalifa sëñ Saliou moom lu xew tey sama kër sëñ Cheikh dina yónnee ay ndaw ñu ñëw ak agsi si kër ga te loolu ñi muy yónni sax dañ koy faral di wax ne sëñ bi de gaawul sax yónnee waaye yow bu la ko defaree le rek sëñ bi am na fu la teg d'ailleurs léegi-léegi avant ni ñëw fii ni ngi daje doomam sëñ abo gis ngeen saafante bi nga xamante ni moom def neen ko ma am relation bu baax ñoom relation bu tegu ci sëriñ ak taalibe euh, loolu daal laa xam ni mën naa ko fi wax euh, ci kom laataa xelkom daan nga màggali. waa xelkom chaque année damay damay damay dem màggali lépp loo xam ne xew na fii si Touba dinaa teew ànd ak ñi nga xam ne ñoom la war a àndal. ban message ngay envoyé yónnee Cheikh Amar mi nga xamante ne mooy sa xarit te moo jàpp sa loxo indi la file ci xelkom. di ko di ko di ko ñaanal di ko souhaité li nga xamante ni moom la commencé boobu ba léegi yàlla def mu continuer ko continuer ko. ba ay njabootam aussi di ko continuer ak sëtam et cetera parce que yombul lu metti la boo gisee xel comme nu mu nu mu toll li tax sëñ Saliou dénkoon ko ne ko yow yaay jéeru xew xel kom xam na lu tax mu def loolu amaana new ma amul ñeneen waaye moom lañ choisir jox ko te booba léegi ñun ñëpp ñu ngi fi ànd ak moom di ñëw di sàmmante kóllëre di ñëw di jaamu fi sunu borom yaa ngi ñëw jàmm di jàmm ci suñu borom te ñun sax dañu la ñëw fekk la nga doon julli macha allah te ne nga fasaaleen nga ñu waaye nekkul yow rek la fekk nga toog dañu gis nga toogal ki nga toogal ni salan la waaw kii sunu sunu xarit la mi ngi tudd Paate mu nekk euh, xarit ci ci Cheikh Amar euh, moom tam chaque année day day ñëw fii si xel comme ñuy nekk saafante bokk liggéey bi d'ailleurs gis nga ñëpp ngi nekk si àll bi ñun tam ni ngi nekk maa moom noonu nekk di julli di ñaan yàlla def jàmm si réew mi ak sutura mu doon ko baax vraiment doon koo xamante ni xel kom bu ñëwee da si da si jàpp bu baax a baax tey mën naa wax ni yu bari Cheikh di sol si yére yu rafet moom mi moo koy moo koy ñëw. Pathé dañ la fekk yéen a ngi toog du julli lan ngay yëg instant bi. non xanaa yëg mbégte rek bon di sant Serigne Saliou bu baax a baax mi nga xam ni lépp moom la moo waral ñu ñëw fii nii. bon di ñaanal tamit sëñ Cheikh Saliou wax dëgg yàlla yàlla bàyyi ko fii mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal tamit ki nga xam ne mooy xalif général bi tamit yàlla bàyyi ko fi lool lool lool te yëg naa daal mbégte lu ma fi sonn nag ak lu ma fi ñàkk rek dama koy xepp parce que koo xam ne tey bi la yàlla di boole moom yaa ngi am presque mën naa ne 19 ans Cheikh 98 laa xamante ak moom boobu j'avais 19 ans léegi mu nekk nit koo xam ne mën naa ne bi nu yàlla di boole dafa yàgg booba xaw ma dara mu nekk naa sama liggéey. di mana naa ne di dama daan def su ma ñawee sama place ba ngoon jot dama daan dugg almadi bi yàlla boole ma ak moom mais bi ma boole ak moom bi ma gisante ak moom rek ni ma jàppee téye moko ko moo waral maa moom ba ag ñu àgg si ba fii ndax loolu lu mu dee dee ñaari fukki at ak nangam la comme ni bu naam wax ñun ñëpp tey bu ba xam xel kom nañ ko sante cheikh amar tam bu ñu bëggoon xam cheikh am na défaut waaw défaut bi mu am mooy dafa baax bu mu ëpp waaw soo amoon leneen loo koy wax tey message bi nga xamante ni moom la ñuy tëjee rek ci Cheikh Amar. waa li ma koy wax mooy mu gën a jàpp ndax moom euh, fi mu fi mu nekk mën naa ni Serigne Touba defar na léppam voilà. voilà Allo Dakar ñu ngi lay jaajëfal sa kër la ndax gis nañ la nga toogal suñu DG monsieur Benama. waaw kooku tamit dafay nekk sama xarit. bon ànd di liggéeyandoo ak Cheikh mu am fi mu féete vraiment tamit dawul dara. waaw dawul dara vraiment bu naa moom amul guddi amul bëccëg tout le temps mi ngi fi gis nga dañoo ñëw gis nga ko dañoo ñëw li avant ñuy def lii dañ njëkk a def mooy dugg si tool yi dagg liggéey bon Serigne Touba daal mën naa defar lépp daal. Serigne Touba mën naa defar lépp comme nañu ko waxee macha allah foor na wax ji waaye tamit ba tey nee naa la biir Allo Dakar la lépp di leeree Khelcom 2018.